waaw suñu àtt doxam na yeneen téere yi nga xam ne dañuy jël damay bàyyi professeur Madieye dafa am lu ma koy defloo ci anglais ci walla xadd karam ba bani aadama ndax anglais yi jot ci anglophone yi da ngeen koy déglu douze minutes la koy résumé da ngeen koy déglu ndax dinañu ko wax ci wolof ku ci déggul anglais bi itam ñun ñii taxuñu mu koy wax daa am ñu nu koy dégtal ca bitim réew te dañoo nekk en direct dégg na ñëpp noppi bismillah Thank you so much. In the name of God, in the name of God, I said, most gracious, most merciful. It's a wonderful today, as I used to say. But let me just be more precise. Just because years ago, the founder of this house, I should say the creator of this area, Sayyidina Usman Bakir Zunuraini, how he used to mention and he's saying, the English language, I remember the first word was to his disciple, do you really mean, know the meaning of the breakfast? So the aim, it was, I mean, it was not aimed at making people understand the, impo- the importance of breakfast or having breakfast. No. Eating, no. It was just saying that making people understand that if ever you want to bumble fap, to surround the world, you have to speak English and you have to master English. And this is what he's doing right now. So that's why I mentioned, I've understood that at the beginning. So the movement was articulated around two movements. It was just around articulated around two movements. If it, am I exp explain myself so? We will say, we'll talk about prequel and sequel. Prequel just because Sayyidina Usman started the things, making people understand, showing people, I mean, making people believe, putting people on the right way to work, and saying always, let's wait till tomorrow. Let's wait till tomorrow. Time will tell. And we live and learn. That's why I teach tomorrow. So people would wake up to, the, the, I mean, tomorrow, and nothing will happen. But the real meaning of tomorrow about Sayyidina Usman Zinorin, just for him, well, what's happening right now in this area, right now with Sheikh Muhammad Karam Bakizinorin, who is the sequel of Sayyidina Usman Bakizinorin. I've honored, <clears throat> God says, I've honored the son of Adam. I've honored the children of Adam. Let me just give you example. When Ibrahim, Prophet Ibrahim, was thrown into the fire, so God says, not to men, but to the fire. You fire, you dangerous fire, you my creature, don't burn the skin of Ibrahim. Just because I have 100 Ibrahim, Prophet Ibrahim, I have 100, the son of Adam. When Sheikh Muhammad Mbamba was just in the ocean, I should say on the ocean, when he wanted to pray in the praying time, just on the flows, just on the waves. Wadang may may après nga eggale bismillah mursid yéegal fii ak yàgg kii waaw sëñ bi demal toog dama leen toog ne le jox ko déedéet déedéet bul toog ci suuf kaay toog ne le jox ko chaise foofu jox ko benn chaise foofu maam na ñëwal ne waaw yow sukkal bul taxaw waaw dafa am loo xamante ni bii jógal taxaw ay ceerno lañu ay ceerno lañu Birahim Birahim ñoom ñooy sëriñ si man maay soldaar bi samay doom lañu naam kii koso la tudd cerno la tudd man maa koy tuddee mursid kii Ceerno la tudd boroom daaru lañ ko tuddee maa koy wooye imaam léegi imam mursid wala mursid wa imam ñoom ñaar dafa am benn duo bu ma bëgg ñu incarné ko ma koy annoncé ci tàkkusaanu màggal gi loolu mooy lan radiallahu anhu sëriñ xaadim conférencier yal na yàlla dolli ay leeram moom lañ gisoon ci ku yore sant wi daan waxtaanee ku tedd ki murid yi di ci bég ñu war a delloosi mbiram teg ci benn plus boo xam ne ndax wali nazimi aydan zadahullah shifa an wa fayda loolu moo tax ma ne imaam da ngay yëkkati bayit bu ko defee mursid wax ko ci wolof bu ko defee Pape Gora wax ko ci nasaraan bu ko defee Maay Jéy wax ko ci anglais arabophone bi jël ci wàllam francophone bi jël ci wàllam anglophone bi jël ci wàllam ñun ñu deseeg suñu wàll ñun wolof am del Chérif moo tax dama lay won yoon wi rekk ngir bu ëllëgee buma ko fekke wul ci yéen ñaar waxon na la li gën li li yéme waxon na waxoon leen li gën yéme moy jarul ma naan ba'dal asbala jaruko fi fii neeku fi amu fi yoon suma nexé rek dama nan illa ya khadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan limumkini serigne bi dafa wax ne Yalla dama jox ci adina ak alaxira lo xam menn am te menn mbindef dotu ko am ci adina ak ndax nga wax ku na na waaw na Bamba Cheikh Ahmadou Bamba déclare ceci en substance le bon Dieu m'a fait don de choses inépuisables, indéterminées, que personne d'autre au monde, jusqu'à la fin des temps, n'aura. Ce don est unique, attribué à moi seul par le bon Dieu. The Almighty, the Lord of have given me something He will never give back to someone else. never ever in, in this present, in right now and in the hereafter. man man, yoni jere jefe Serigne Touba. jefe Serigne Touba. jefe Serigne Touba. Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Cheikh Ahmadou. foofu sëriñ bi dane yow yàlla yow mi zal jalaal yaay boroom màgg gi nga xam ne dara màggante wut ak yow yaa yow mi aji kawe ji te sañ kawe kawelu yaa xayra yow mi ngën ji kilifa le bon Dieu cher Ahmadou Bamba déclare ceci en substance toi le bon Dieu tu m'as fait don d'une élévation inégalée et à jamais inégalable ma posture dit-il en substance n'est égale à aucune posture existante et aucune autre posture existante ne la sera supérieure. Hey you answer. The Lord of Lords, answer. Answer my request. You the great. You the leader. You the greatest. You the creator. Answer right now my request. Answer, please. fa tabarakallah ma tay doyna. damay lancer rek sama la kii sama doom la kon jàppale ni kii mooy mursid kii moo di imam dem leen toog mondial yi nekk yi nekk ci cinq dans les cinq continents état bu ci nekk sa symbole drapeau mi ngi figuré ci tenue bi moo tax mu nekk tenue mondial soldaaru Bamba diko sol nan jere jeffe serigne Touba. jere jeffe serigne Touba. lu leer. li tam xam ngeen ni day waral ngi gis ngeen fa mu jëm nan du ma ci tok sax way dama bëgg ngeen xam ne day waral ngi ko rek. Ini orang ini wër bu dal su ma wow, toog ci waaw waaye duma ci toog ndax neexuma pourtant su wow, neexee buur boorlu waaw waaw waaw dégg leen xam nga murit àjjana lay dund man Mbéri sey sama mam sohna mare mo mo ma won en 77 bi la yàlla yi bind da la bind nga wara don doon wara don a deugul premier étape de la révolution mondiale en commençant par li ngeen def lek révolution religieuse d'abord abord mënoon naa ni innovation wala yu demee noonu man maa préféré baatu révolution ndax. wa ma arsalnaaka illa mubashiran wa naziran nazir googu moo Je may préféré la révolution mais pacifique révolution religieuse madame. révolution spirituelle d'abord waaye ëllëg deuxième étape révolution culturelle et musicale comme deuxième étape gannaaw ëllëg révolution politique comme troisième étape dañ koy teel étape bu nekk ak la mu

animaux certain animaux dinañ leen woné expliquer ni ñuy sabalé sen bureau sen borom tambalé ci gaynde gi wax allah bu gaine gaynde guy wax allah allah allah allah bu ko deful te dañ ko war a sax yàkkamtee def bu ñu ko deful ndakaaru mbir dina fa xew révolution musicale bi bu gaawul bu gaawul ndax inal xasanaati yuzhibna ati bu gaawul ndakaaru la fay xew bu xewee kenn du ca man dara te benn bunt la ñun ñëpp mënuñoo xaj ci buntu bay génn man Modou maa wax loolu fii noté leen bis ma ko xewalee te les artistes ñu ci de leen xool ñoom ak malaayika yi bis bu ñu continuer lii xew ba 5 heures du matin ba 6 heures du matin bis bu ñu ko continuer dee leen xool lii mu sa xew ndakaaru te ay du yam ci bopp boroom la wolof wax loolu maa ko wax noté leen ko de samay wax jalub muus la wàqe rek gis ñu ci sunu kanam dafa am information bu ma leen jox bu ma leen di jox La femme ben bayit ci bax baxaa ma ci 7 millions ñu jangal ma 7 millions. 750 750. 808 7 millions 750 ñaari 7 ak 5. ñaari 7 ñaari 7. ak 5. Hmm, plus. 27. Hmm, 27 hmm, plus. plus 8 waaw plus 8 encore. waaw. Hein? 35 waaw. muy waaw. waaw jàllal des jeex na. jeex na waaw. wa yaa ilu wadat fa yaa ilu. wasat fa yaa ilu wa at ma yaa ilu wa kam ka yaa ilu wa sas ma yaa kilu wa sas ma yaa ilu wa zën jaaya juróom-ñetti malaaka ñoo tee aras kon li ma doon jàngulu ci bat ba bax ba lim bi ñu ma jox. ci yaaman yu liinu kulla tawdin shamaqa dakkan lii xëxër kulla jaanin basmaqa moom laa doon jàngalu 7 millions kon nombre bi ñu ko jàng am nañu ngërëmul juróom-ñetti malaayika yitee aras adat bi loolu la indi azar amul lépp a ngi ci abajadaha wa zahataya kalamana sahafada xarasata zaqada zaqasha Lep, mi ngi foofu juróom-ñetti baat yooyu di lettres langue boo dégg ci àdduna bi foofu la jóge boo ko xamee ak boo ko xamul ana ban jannadan jannatan ndem dafa neex bopp foofu laa koy yemale dama leen di jàngal rek bu biyee ma yóbbu leen ba Inde su ma neexee bàyyi leen fa su ma neexee delloosi leen yóbbu leen ba Égypte ba Caire su ma neexee bàyyi leen fa su ma neexee delloosi leen su ma neexee su ma neexee ma jàngal leen waaye arab yoo xam ne bu ko arab déggee daal ni lii nit ku ñuul woyu ko ndax ki ko bind noonu la ko bindee amet a ngi nii naar yi bu ñu gisee mbindam dañ naan lii nit ku ñuul bind ko waaye itam su ma neexee lim ma ci defal noonu lay demee برب العرش برب العرش ذي الجود والعفو مها المصطفى مها المصطفى والله والله لمخلد صفوي وددت برب العرش وددت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى مع المصطفى والله مولد صفوي musta tàggoog moom alayhi salaatu wasalaam musta tàggoog moom fu mu dëgërloo yàlla itam fu mu tàmbalee mu accompagner ko moo waral mahal Moustapha mu koy wax fu nekk waaw kooku ko am amet fekkewu ko wax naa ko fii ci suba wallahi bu ñu ma déglu woon bu ñu ma déglu woon ñale ñuy wax naan ay terorist lañu te ñuy wax allahu akbar bu ñuy def njaaxum bu ñu ma déggaloon ñetti bayit képp xajul ci ñoom dañ lay déglut te buñ la dégg boo leen waxee li kiy wax rek ñuy soppi looloo ngi fi waxee naa ko nu ne lépp naa lupp naa ñu ne selaw ah baax na ba ca kanam li ci kanam rawuti bët nañu continuer ni salaw rek problème yépp moo yor solution bi mom ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu rasoul solution yépp moo ko yor mun na ya bi ulumil asfiya wa bi kitaabati ya kulla dashfiya feebar ñaar la yaram ak feebaru xol bi gis ak biñ dul gis hamdan li zili dona wa da'i waye wa zili shifa wa dawa ñu ni ko fi kupp lool di réunion rek réunion yi du faj dara benn minorité buy jóg di defi njaaxum pour combattre leen il faut une coalition mondiale grande puissance yépp ànd ci ba noppi ñuy gagné terrain waaw loolu jarul loolu scientifique nañu xalaat minorité bu pour combattre les enfants àdduna bepp am ci yoon ah lo mata baye bàyyi xel loolu loolu dafa jar xalaat serigne touba dal moo amara ni rabbi bi an usarriha bi annani ni malazun wa mafzahun faman arada al fi bi Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et dernier recours et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi. de mon corps. wax ñu sénégalais Sénégal comme ni ko nous sommes nous bi yépp nuy nous sommes ne ni selaw Le Karl Marx waxul rek wala nous wala tenir en considération léegi nag ëllëg ki si biir lu xew bu kenn jàmbat nanu ko assumer comme wax nanu li nuy musal te nanguwun ko nanguwunu koo geesu lu dul li fi tubaab bi bàyyi rek la ñuy topp ah ay ca lu xew rek lu xew daal nanu ko muñ waaw lu xew nanu ko muñ de dëgg la nag xasaayid yi ñu ngi koy jàng fu nekk ca capital ba ak fu nekk ku tedd ki dafa bari yërmande waaye am na loo xamante ni bii itam nag am na foo xam ne bu ñu fa eggee day ah bu nee tekk bu seetaanee donte benn minute rek la day ëpp benn minute rek am na loo xam ne dëgg la na sëriñ si ñaan ak yépp yàlla de moo ko digle ndax xul maa ba ubbi ubbikum rabbi law la duaukum ak adoni adoni la lakum waaye sëriñ Tuubaa li mu ñaan daa nangu ba noppi moom da ngay ñëw rek jël daam ñu ñu koy jariñoo ndax yow bo ñaané sa borom xamoo ñaan gi dina nangu xamoo du nangu <laughs> li nangu ba paré loolu la moom mu ñaan dafa nangu ba nopi مد لي الحسنى ومد لي زيد من لي يقول هاك قبل مد يد wax deug yalla bala ñaan yalla ni ko mayna la ba nopi formaliser rek waxe naa leen ko nu ne ëllëg lu xew nu na pour yàlla naan ko léegi kay la nga doon waat wàcc nga tey jox naa la falukaay gi tey malaaka yee lay seede tey bur yàlla naan ko léegi kay danga doon waat wàcc nga tey jox naa la faalukaay gi tey malaaka yee lay seede tey bur yàlla naan ko léegi kay danga doon waat wàcc nga tey jox naa la faalukaay gi tey malaaka yee lay seede tey yàlla joxaat gouvernement ndigal ci Bamba sunu maam ne leen àdduna maa ko moom jox naa ko lépp mooy boroom jox naa ko mulkeek malakoot joxaale naa ko jabaroot def naay bisam yépp di feet ndax ay mbiram lépp di mboot ndax moo di man te maa di moom gën gi mbindéef itam di moom àjjana yi te ko moom firdawsi laay dugal ñoñam ndax moo di loolu yërul ñaan nañ leen ko bismillah toog leen waaw loolu man taalif boobu maa ko defoon ci 92 ñaari rakkay ndar yi biñ ko jagleelee Seydina Ousmane borom pàkk bi ci laa ko defoon taalif bu yéeme la bu nu ñëwee tey jii ci ndar mbaa bu nu ñëwee tey jii fi ndar santati Bàmba rek a war waaw ndax lu fi baax moo ko defar ci ñaari rakk yi ci ndar dégg ngeen li ma wax ci ñaari rakk yi ci suba taalif bi maa ko defoon muy taalif bu yéeme defe naa ni ñaari rakk ya ba ñu ko duppee Seydina Ousmane la tàmbalee jël ampleur ba léegi defe naa ni semaine booba chauffeur taxi yi nekkoon ndar yépp bëgguñu woon événement ba gaaw a jeex ah la ko waral mooy la ceer na njëkkoon a dem ndar looloo ko waral